voilà mbokk yi yéen a ko gisandoor ñu ngi nii euh, jàkkaarloo ki nga xam ne mooy liggéey politique bi nga xam ne mooy liggéey politicien bi nekk ci diwaanu Passy yi ñu koy wax euh, Mame Mbaye mu ànd ak collaboration ak euh, ñi nga xam ne ñooy délégation Mame Mbaye ci wàllum tabaski Mame Mbaye nuyu nañu la. fay nañu leen. ginnaaw bu ñu nuyoo ñu bàyyi la nga présenté wu. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu wax alhamdulilah di sant d' abord yàlla bi ñu mayee ñu fekkee bës bi sant également waa Passy TV di wax alhamdulilah bi ñu yàlla mayee ñu mën a fekkee bés bi nga xamante ne bésu màgg la ci diine lislaam ñu ci profité ñun en tant que jullit en tant que doomu dëkk bi ñuy balu àq bépp doomu Passy di balu àq bépp jullit ak fépp fu mën a nekk di wax ne euh, bés bu ni mel fekkee ko pour mën chance la ci doomu aadama rawatina nag ba nga ko mën a bokkeek say mbokk julit bokkook say mbokk say mbokk direct yàlla def ngeen passé ko ensemble. ñu ci santaat yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla bés bii mu doon bés yokkute si bépp doomu Passy mu doon bés boo xamante ne bu ci am kenn lu muy rëccu lépp lu métti loo xam ne jàll na ci yàlla yàlla faar lépp lu ci sàkku tefu doomu aadama yàlla yàlla defal ko. encore une fois daal ñuy sant suñu yaay yi nga xamante ne ñëpp ñu ngi fi teew si ah bàyyi seen yitte yëpp ñëw mën a fekkee ak ndaw ñun bés bi ñu ci ñaanal yàlla encore une fois ñi nga xam ne jiitu nañ ñi nga xamante ne suñu papa lañ suñuy waajur lañ ñu nekk fii yal na yàlla yokk leen bës bu tedd bi ak màggaayam yal na yàlla def ko xiwal wàccee ko ci doomu képp kuy doomu Passy yàlla wàccee ko ci Sénégal nawet bi ñu jublu si également yal na doon bés bi nawet bi nga xamante ne eh, nawet bu mucc ayib lay doon waaye nag mënuñu wax te du ñu tudd également période bi nga xam ne moom la ñu traversé muy période pandémie bi muy Covid 19 bi nga xam ne am na yàlla def ñu ñu koy dundee ñu ciy lancé appel nag bépp mbokk bépp mbokk julit ñu ñaan ci yàlla yàlla dindi ko fi mais ñuy tàllal loxo nit ñi aussi ñu bàyyi seen xel ba lépp lu ñuy def rek ñu suuraale ne période bi période métti la waaye période pandémie la ñu bàyyi suñu xel ba nga xamante ne nañ ci moytu. mesures barrières yi nga xamante ne moom lañ ci bëgg yàlla defal ñu ko ñu mën ko moytu ba yàlla dimbale ñu feebar bi génn fi loolu daal mooy li nga xam ne bëggoon naa ko ci sànni bu loolu weesoo aussi en tant que aussi responsable politique ah ñu xam ne am na ñuy bàyyi xel ñu jaaree foofu tam suñu kàddu yëkkati ko si ñaaxaat ñëpp ñu waat ci seen xel bu baax a baax baax amaan na sax ne euh, jàppoon nañu ab bés ne dañuy organiser benn manifestation lendemain tabaski bi waaye dañ ko fomm ndax. dañ ko fomm ndax parce que dañu jàpp ne euh, fête bii ñu war a jublu si mu nekk fête boo xamante ne mën na bokk ci liy propager euh, virus bi tax na ñu ne nañ ko fomm fomm bi nag fommuñ ko rek bàyyi ko dañ ko fomm inscrire waat ci beneen logique pour fexe ba nga xamante ne dañ def journée de sensibilisation di jël ay masques séddale ko ci dëkk bi jéem a sensibiliser également waa dëkk bi yëpp pour que ñu bàyyi seen xel ci feebar bi parce que loolu nekk na loo xamante ne tant que génn si ñun rek. benn activité duñ ko mën a def loolu daal mooy li nga bëggoon a sànni bu loolu weesoo aussi a ah, ñuy tàllal loxo nag kilifa diine yi bi ginnaaw bu ñu santee imam yi sant chef de quartier yi sant képp koo xamante ne mu ngi ñu jàppale si côté politique ñu tàllal loxo suñu waajur yi suñu mbokk yi mag yi rakk yi te li ñu amoon comme yéene mooy dëkk bi ñu changé ko ginnaaw bu ñu ci gisee li nga xamante ne moom la doxal bi nekkee tey jii am na loo xamante ne mën nañ ko souligner fii léegi muy dañuy taxaw di war def def manifestation bi def julli bi muy nekk loo xamante loo lu am solo si doomu aadama yi ñuy taxaw ñuy laajte bâche yi luñ ko fayee muy loo xamante ne ben jàpp naa ne municipalité bu yoo xamante ne mu ngi ci yoon bi moom la ko nit ñi teg wallahi wartoon a nekk lii dafa wartoon nekk lu nit ñi di laaj warugar la si si popula si communauté communauté bi warugar la boo xamante ne commune bi da ko war a jël en charge si loolu nag dina tax ñu ne leen ñu ngi leen di tàllal loxo ñëpp incha allah échéance yi ñu jëblu si yàlla dimbale ñu bañ yàlla may ñu ci ndam amee incha allah lépp luy jooytu nit ñi bu soobee yàlla dinañ taxaw loolu daal mooy sama discours bu ma ko sant ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi leen di remercier yéen ñëpp jërë ngeen jëf